mbokk internet di ziar naa leen ba yéen a ngi am jàmm tey ma amati mbégte ñëwaat ak yéen ci seen émission bu am solo bi di solution lii benn xale bu góor la xale bu góor bi nee na moom ak gàmbien la mais yàlla dafa def mu amoon benn copinam bu mu doon génnal fële ca gàmbi mais nee na moom nag tailleur la après mu daal di dem Mali pour eggale fa li nga xam ne moo di liggéeyu tailleuram nag màggal bi ñuy déggante nice nice ba nga xam ne sax jëloon na décision bu dugaatee duggaatee bi daal di takk xale bu jigéen bi mais nag nee na yàlla dafa def xale bu jigéen bi da ko présenté woon benn xaritam jox ko numéro téléphone xaritam bi pour ñoom ñaan ñuy déggante nee nag ñu dema dema dem ba ay jamono xaritam bi woo ko ne fa ne gelam bi woo ko plutôt ne ko dafa xuloo ko xaritam boobu mu ko paasoon nee na nag muy waxtaan ak gel bi naan ko non bul xuloo kooku sa meilleur xarit la déjà yaa ngi ni jox ma numéro may waxtaan ak moom tout le temps ba pare nga wëlbatiku ne dangaa xulook moom nee na gel bi ne ko noono kooku kay bàyyi naa ko àddina ak àllaaxira nee na nag mu nekk di leen arrangé naan ko non yow munoo bàyyi kooku kooku mënulaa bàyyi continuer leen rek seen xaritoo bi ngeen nekkoon moo gën mais nee na gel bi dëgër bopp ne moom bàyyi na xaritam bi nee na nag xaritam bi moom boo waxee rek mu ne ah man de jàppaluma ko dara mais moom moo naan bàyyi na ma nee na nag mu bëgg a forcer gelam bi pour mu jubóog xaritam bi mais aussi xel mi ne est-ce que du tester xaritu gel bi xool ndax xaritu gel bi bëgg na maanaam sincère na ci digganteem ak gelam bi ba pare mu doog a forcer gel bi mu jubóog moom nee na nag ci la jékki-jékkee xel mi daal di koy indil loo xam ne nee na bu démb doon tey du ko def nee na muy testé xale bu jigéen bi di xool ndax effectivement li muy woote ne dafa bëgg gelam bi dëgg la wala déet nee mu envoyé ko ay message di ko doxaan di xool lan la gel bi di def nee na nag bi nga xamee ne envoyé na ko ay message te nee na moom yàlla xam na ne c'était juste rek pour testé xale bu jigéen bi xool ndax sincérité am na digganteem a koppinam bi muy àndal nee na mu envoyé ko ay vocal di ko doxaan di ko doxaan pour testé ko nee na mais xale bu jigéen bi dafa jël vocal yi daal di koy envoyé gelam bi nee nag bi nga xamee ne gelam bi gis na ko gelam bi daal di mer daal di koy xuloo moom woo ko xas ko ba mu ràbb ba pare daal ne ko suñu diggante na fi yem nee nag mu wax expliqué ba sonn wax gel bi ne ko noon nobu ko man doxaan sama xaritu gel loolu sama jikko mais comme yow danga ne bilaa dee bàyyi nga ko àddina ak àllaaxira te moom nee na sa xarit la bëggul ngeen bàyyante moo taxoon ma doon xool ndax sincérité bi muy woote seen diggante dëgg la wala du dëgg moo taxoon ma ko doon doxaan ko testé waaye man noobu ma ko mais nee na gelam bi dafa lànk daal ne ko comme affaire yooyu ngay def suñu diggante na fi daa di yem neena nag bi nga xamee ne gel bi nee na ko suñu diggante na fi daa di yem nee na moom ci boppam ci la daa di daa di toogee toog di neexal gel bi di neexal gel bi di neexal gel bi mais nee na yàlla def bi nga xamee ne toog na ca Mali di liggéey di liggéey ba yàlla daa di dogal mu war a ñibbisi bi pour bu ñibbisee daa di régler quelques affaires daa di takk gel bi une bonne fois pour tout nee nag bi nga xamee ne yàlla def na mu ñëwaat Gambie nee na mu daa di woo gel bi waxtaan ak moom ne ko ñibbisi naa maa ngi nii Gambie nee na mu toog deux jours après mu ne gel bi maa ngi nii di ñëw seen kër pour ñu gën a waxtaan bu ko defee ñu préparer suñu mariage nee na nag bi nga xamee ne wax na loolu gel bi gel bi nee na waaw mais dafa jékki-jékki bi muy départ pour dem kër gel bi nee na mu woo gel bi téléphone rek nee na gel bi yuuxu ko ne ko bu fi ñëw bu fi ñëw bu fi ñëw ndax dangaa jékki-jékki rek ne ma yaa ngi fii ñëw bu fi ñëw nee na nag ci la waxee ne gel bi yow lan nga bëgg ma ne la maa ngi ñëw nga ne waa ba pare ma ne la maa ngi ñëw nga ne ma bu fi ñëw lan nga bëgg léegi nee na gel bi ne ko li ma bëgg mooy sama digganteeg yow mu yem fi nee na nag mu ne moom gel bi bëggul digganteem ak gel bi daal di fi yem ndax nag moom dafa bëgg gel bi torop torop torop te gel bi jaraloon na ko lu ne te ñoom ñaar yàgg nañu lim doon def noonu di doxaan xaritam bi c'était juste pour tester xaritam bi ndax bëgg na ko wala déet mais gel bi gisewu ko noonu nee nag affaire bi daal di koy naqari torop torop torop ndax moom wax dëgg fa yàlla lii rek moo ko dugaloon ci loolu mais du woon lu dëggu si moom nee na nag ba tax na gel bi moom nee na ko suñu diggante na fi yam mu ne nag seen diggante bu fi naree yam moom du ko nangu ndax dafa bëgg gel bi léegi nag nee na muy laaj mbokku internet di ndax moom dafa war a liggéey gel bi pour gel bi sëyal ko wala déet nee na daal bii xel danaan ko liggéeyal gel bi ndax seen diggante am ndax gel bi su la bàyyee nii day yomb nee na des fois mu tëkku gel bi ne ko soo ma sëyalul doo seyul góor ci àddina léegi nag question bu doy waar la posé ndax mu liggéey gel bi wala déet man nag xawma kan moo koy wax na liggéey doomu jàmbur loolu moom kenn mësugoo gis ci àddina ba pare nag mu teg ci mu ne wala boog bu fekkee am na benn internet boo xam ne bëgg na jëkkër maanaam gis na it jigéen bu bëgg jëkkër mu daal di ko koy may bu ko defee mu takk jabar ndax mu fàtte gelam bi nga xam ne da koo mere ci erreur bi mu def te nee na c'était juste pour tester xaritam bi nee na nag jabar la bëgg ndax mu mën a fàtte gelam bi wala wa illaa mu laaj leen ndax mu liggéey gel bi pour gel bi sëyal ko wala déet man nag mosuma gis kuy laajte ndax mu liggéey nit liggéey nit moom kenn du la ko xelal bu dee nag jabar nga bëgg xëy na peut-être nit ñi bu ñu gisee ku bëgg jëkkër ñu boole la ak moom mais au-delà naan la naan la liggéey ko ndax mu sëy ak yow ah dëgg fa yàlla ya sëy moom bu ko yàlla tudd rek yàlla tudd ko nit nag du forcer loo xam ne mënul nekk xaaral ma liggéey diw loolu moom kenn du la ko wax je pense liggéey ko ndax mu sëyal la léegi kay nangu nga ne yaa def erreur naxanteel ak moom rek nga expliquer ko ne yow yaa juum nga baalu ko xëy na bu yàggee xolam dina giif mu baal la mais liggéey moom wax dëgg fa yàlla kenn du la ko conseillé ndax nag liggéey kenn daa xamul fu muy yem ndax des fois liggéey bi dépassé les bornes dema dema dem ba yàq dundu doomu aadama boobu moo tax liggéey nit ki moom kenn du la ko conseil ñaari conseil rek a fi mën a am soit nga neexal ko ba mu baal la comme nee nga wax dëgg fa yàlla doxaanoo xaritam bi da nga doon tes si xaritam bi ndax bëgg na ko walla déet mais moom giseewu ko noonu ndax xarit bi da kaa envoyé vocal yi léegi nag yow neexal ko daal xamal ne ko lii la woon ba gel bi nangul boppam te it nit du forcer nit ci lu mu bëggul nit moom moo bëggoon bëggatul naxanteel moom ba mu nangu su nanguwul nga bàyyi ko nga tànte comme li nga mujjee wax ci loolu laa d'accord mbokk internet di ko gis jigéen bu bëgg jëkkër ndax li nga ko waxee jigéen bu baax yombul mais nag comme def nga erreur ba gel bi mere la ñaar rek mën a nekk neexal ko ba mu baal la wala comme li nga wax lu mujj li loolu moom mbokk internet di mun nañ cee sawar maanaam bu ñu gisee ku jigéen koo xam ne dafa bëgg jëkkër te bëgg sëy rek te yàlla tax ñu boole la ak moom nga takk ko ndax nga mën a fàtte sa copine bi comme sa copine bi nee na bëggatul waaye nag wax dëgg fa yàlla lii moom maa ngi koy doog a dégg ndax ma liggéey nit ki pour takk ko ndax dama koo bëgg erreur kese moo am loolu moom kenn du ko digal nit liggéeyal nit kenn du ko wax nit ndax liggéey ci boppam conséquences yi mu mën a indi kenn dakaa xamul ay ca mi ngi noonu waa daal loolu la posé question ndax mu liggéey gel bi pour gel bi sëy ak moom wala mbokk internet di képp koo xam ne nag gis nga jabar ju bëgg a sëy nga daal di ko koy may mu daal di koy takk mais nag góor buy liggéey yaate moom man je me pose la question est-ce que tamit gars yi dinañ la ñeme ndax nag booy def sa xel ndax mu liggéey ko moom est que gars yi dinañ la ñeme waaye lu ci mënti nekk daal ndax ma liggéey ko bi moom seen bi nga baal ma nag teg ko ci suuf ndax loolu kenn du ko wax kenn du liggéey doomu aadama ba pare xamoo liggéey ban conséquence la koy daal di jural ay ca mi ngi noonu di leen jaajëfal bu baax a baax waa ji loolu la bëgg comme solution ngeen daal di ko ciy jàppale bu baax a baax jabar la bëgg comme saa mu mën a fàtte gelam bi nga xam ne nee na bàyyi na ko donte nag nee na bëgg na gel bi trop ba gis ngeen sax muy laaj ndax mu liggéey gel bi wala déet ay ca mi ngi noonu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen fàttali aussi ngóora naturel comme ni ma leen ko waxee suñu ay gàncax la ñu jëlee ko fële ca Casamance ak fële ca Fuuta ngóora naturel nag nee naa leen gàncax yi lañu boole def ko pëndax bu am solo bi mu nekk puissance bu am doole bépp góor boo xam ne danga xaw a néew kàttan boo jëlee ngóora naturel yàlla mën na laa dimbali nga daal di jotaat sa kàttan ngóora naturel nag amul la benn effet secondaire parce que ñi nga xam ne jot nañ koo jënd defaat nañu ay retour ne gis nañ ci ay résultats yu tarkalla macha allah képp ku bëgg ci ngóora naturel bi da ngay woote ci 77 531 25 79 77 531 25 79 bu ko defee nga daal di am ci ngóora naturel bu am solo bi. jaajëfal bu baax a baax Kanasatoulah Coréenne moo nekkoon ci caméra bi nuyu suñu DG Seyla Tir nuyu équipe bu technique bu Thiès Info yëpp di leen joxaat dig daje suba incha allah ci yeneeni solution di là portez bu bien et bonne suite de programme sur Télé Sénégal Info